Birahim nga nekkoon bon fi nga jaar bari na mais fi nga mujj. Mhm. Euh, muy Sen TV nga nekkoon fa journaliste nekkoon fa aussi red chef. Mhm. en un moment donné ñu dégg la leeral. Mhm. Euh, nga nekk fa directeur général déjà passage boobu noonu naka la ñëwee. bah disons euh, normalement parce que gis nga j'ai fait pas mal de rédaction. te bi ma commencé liggéey xaw na yàgg nekkoon naa. énergie FM tëj na depuis longtemps mhm. euh, jaar naa Première FM jaar naa Walf mhm. jaar naa Sud euh, nekkoon naa correspondant BBC actuellement bien que maa ngi liggéey leeral mais je suis aussi correspondant de RFI mhm. donc métier la boo xam ni jële dans le sang te li waa ji mën a wax naan ni euh, xaalisu mbër lañ ma ngénte man xaalis journaliste lañ ma ngénte ma ay ambition bi may jógee Walf ambition ma yóbbu woon. Mhm. ma dem euh, première FM boobu temps ci jàmbal Diagne. Mhm. ambition ma yóbbu BBC ambition ma yóbbu feneen ak feneen. bi ñuy jógee Sen TV également jàpp ambition ne ni gravir naa échelon yu bari. Mhm. ba nekk rédacteur en chef. direction. dans les mêmes conditions mais. où j'aurai plus benn autonomie bu ma mën a defal sama bopp li mu bëgg. changer sama bopp li mu bëgg changer par rapport ak benn kër. bon moo moo tax ma accepté ko te bon ba léegi nii sant bi am naa fa ay am di jàmm Bougane Gueye Dany ma koy ma koy nuyu on se parle régulièrement mm-hmm. kenn jàppalul sa morom quoi que ce parce que dem bu rafet laa fa génne mm-hmm. fi ma nekk tamit di ziare suñu promoteur bi di PDG bi di di Dame Dieng bàyyi ma ak sama liggéey vraiment euh, nee ma c'est ta maison noo ko géré bu baaxee yow la bu bonee yow la donc euh, sant yàlla Mais c'est une transition tout à fait normale. Mais de chef à directeur général quand même. Ouais, mais euh, euh, C'est rien. Mm. C'est absolument rien. Directeur général, directeur euh, de l'information, directeur, c'est quoi Directeur, Maïlan, tu travailles avec une équipe. Mm-hmm. Le directeur travaille avec une équipe. Maïlan, caméraman bi ci sa équipe la bokk mm-hmm. preneur de son bi sa équipe bokk mais boo leen ci boolewul mais doo man li may liggéey foofu presque dama jël genn wàll gi jox ko coordonnatrice bi pour muy coordonner tout ce qui est rédaction jël mhm. benn tâche jox ko benn chef euh, ci euh, équipe technique moom mooy yore tous les cadreurs ak tout ce qui est son xool na mu leen di gérer mhm. am ku nekk régie di gérer tout ce qui est euh, ñi fay nekk réalisateur ak yooyu mais c'est juste que tu es chef d'orchestre ouais. directeur général directeur chef d'orchestre le chef d'orchestre li muy mën mooy ci biir orchestre bi ku ci nekk da nga am benn partition booy jouer ci musique bi. Mhm. am na kuy jouer violon am na kuy jouer violoncelle am na kuy yore tumba am na kuy yore flûte. Euh, am na kuy yore saxophone ku nekk li nga yore. c'est une équipe en fait. bu ci amee kenn ku ci yàq musique bi. Mhm. mais du ñu xool kii dañ naan chef d'orchestre moo ko yàq. parce que yow yaa war a manager ñi fa nekk donc c'est c'est pas compliqué l'essentiel c'est d'être humble euh, te humilité boobu sant yàlla moom laa gardé entre. alors ñaari passage léegi.